يكفيني يا الله coalition idi 2019 di Idrissa Seck di wajal élection présidentielle yi andak délégation bu takku ñew khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir dalal ko ci ziar bo xamné amal na ci kanamam and fekk kilifa yu bëri ngir mu ñew mu ñaanal ko ci li nga xamne mom lay tabbi di campagne électorale bi lolé lepp mu mën ci am ndam lu ni mel nak def nako ci teewaayu kilifa yu bari bimu accé nak mom président Idrissa Seck yëkëti na fa ay cadeau ci mu sëriñ bi. li ñu jëm xol la nga ak ñom ci sa bëti yërmënde yi ñaanal leen réew mi gëna am jàmm li ñu jëm nak li ñu bëgg moy jot ci liggéeyal sëriñ Touba lool rek tax ñu bëgg ci jot ndax mom tak na ndomba tank lu ne waye neena dal